alaikum wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu. Haji Babacar delloo naa la nuyoo ak ziar bi. jërëjëf oustaz aywa ci yóbbalu bés bi. waaw Haji Babacar yóbbal bi ci àjjuma bi dafay ñëw ci soññ nit ñi ci salaatu ala nabi nga xam ne jullit bi war na jamono bu nekk muy def salaatu ala nabi waaye raw na ci rawati na ci àjjuma na diggante takusaan ak timis ku ci mën nag mu koy def incha allah. ci témèr ak juróom-benn yoon témèr yoon ak juróom-benn yoon moy 106 fois so noppé nga tëje ko ñaan bi xaaji babakar ñetti baat rek la barewul rabbi aghnini bi karamika an jamii khalqika wa sun wajhi wa lisaani an masalati gayrika waj'al min amri farajan wa maxrajan su ko defee sunu borom dina la indil musal la ci gàcceeg laaj ba noppi loo yóotu yàlla teg ko sa loxo Hadji Babacar. jërëjëf Oustaz Mor ñu jël